da nga ci am mbégte goo xam ni lu jéggi dayoo kon ñu ngi leen di sant di rafetlu dox yi ñuy dox di ko def Ndakaaru di ko def dëkk bi ci waajtaayu màggal gi di sant sëñ Balla itam ci taxawaay bi muy taxaw ci commission culturelle bi waxtaan yi ñu koy topp di ko rafetlu di ci jàngat ñeneen di ci jàng sëñ Fallou Galassé la muy itam. dëgg yàlla taxawaay bi muy taxaw ci kër gi ak ni mu xamee taarix di ko teg ci lu wér loo xam ni loo xam ni lu làmbatu loolu day lu am solo fan yii rek dafa am koo xam ni dañuy waxtaan fekk dama dafa déglu ci waxtaan yi hmm. mu ne waaw sëriñ bi yéen waa Daaru lu tax lii ngeen am du ngeen ko wax nit ñi xam ko ndax lii mooy murit boo tuddee Maam Anta Njaay ñu ne loolu mooy yoonu murit ndax lu fi am moom moo tax booy déglu ay waxtaanu maam Cheikh day mel ni lu amoon ci jamono yonent yàlla Suleymaan la maanaam ay lépp boo koy jàppee ndax ni mu kéemaanoo te mënee su ko gisaat ca moom lañ ca moom la tàmbale woon ca moom la yem mu ne ma sëñ bi lu tax du ngeen ko waxtaan ma ne ko ah, xëy na Daaru Salaam dañu amul waxkat wala kon nag la sëriñ bi ñaanoon ne ijal salaamatan te du mu yaa salaam liyaa wali liyaa fi daari salaam yaakaar naa ni salaam googu moo ñu xaw a tënk ba daanaka ñun duñu bari jam-jam waaye li nga xam ni sëriñ bi wax na ko ci xasida yi wax ko ci maam Cheikh wax ko ci dëkk bi Daaru Salaam yaakaar naa ni lu ñu war a mën a génne la ndax dafa am dalil am tegtal am na ci yoo xam ni yàggul ndax man bay cheikh jaxate fi da na ma netal yu bari yo xamni nan dama tok seigne gar tok wala dama tok seigne touba tok demu makko gogo nak bis bim koy netali neena kérok bako seigne touba di digal mam cheikh anta ñom ñaara and munuma kero bobo seigne bi mi ngi tagatok mom seigne bi bam leen di recevoir lu masta def ci porter la doon waxante ak mam cheikh anta diko digal ne ko cheikh neena ba cheikh neena dand na len waye nak ma ngi ciof ci wax ji bam koy digal nan ko dama bëgg nga ajali ma ndax bëggon na ko te yene won na ko niko serigne bi waxe waye bobu serigne bi teunku na ba mënatul aji mu ko dama bëgg nga ajali ma te boy dem na nga and ak sama dom yow and ak sa dom and ak mbacke bu sok domam ñeneen ñu ca and nak ya len ca bolé kon bo doxé ba léegi dégg léeg-léeg nga dégg ci ay waxtaan ñu naan sëñ Fallou moo jiite woon délégation bi déedéet ma sëñ fàll boobu wax dëgg yàlla doomi sëñ Tuubaa la waaye boobu mënut boppam maam Cheikh Anta moo yoroon lépp fi ñu toll reçu yëpp boo ñëwee mën naa la ko génneel reçu yañ paase lañ fayee passeport ya euh, lañu ñu tayle woon maanaam première classe ba deuxième classe ba la ñu wecceeku ci xaalisu nguur manam ba mam Cheikh Anta wecc ko dese na deux francs ci li wax ay luy d'or khalis or bam fayé bi yépp lañuy wax sax nan mayoon na diwli may na diwli manam dafa don dundal sunna ci ñu ne dem makka meunal sa kanam meun sa gannaaw ndax sa kër bu mu ranké mam Cheikh Anta ñim leen dimbali daan leen dundal kenn ku ci nekkoo ko daf laa jox loo xam ne ba keroog muy ñëwaat da nga ca mën a dunde kum jox fas tax fas woowu pour nga mën koo wecciku la mën ca am loo dunde kon yoonu màkk bi daanaka noonu la tënki woon ci maanaam ci euh, fànn finance maam Cheikh Anta lépp moo ko yoroon amul kenn ku ci war dara moo dem ba jox leen tax ñoom seen argent de poche ndax loolu ndigalu Serigne Touba la doon doxal bu ñuy ñëw nag ci thème bi maam Cheikh ak liggéey man dama doon wax sëñ xaaj bi man na ko daanaka jarutoon may ñëw ndax lan boo ñëwee ba ci penc moo xam ne sëñ Moustapha Caytoo fa nekk bëgg a waxtaane maam Cheikh ak liggéey mënoon nañu waxtaane sëriñ Moustapha Caytu kepp te daa yàggul naa naka moom dafa dafa nekk maam Cheikh ci jëmm nekk ko ci taar nekk ko ci doxalin nekk ko ci xam-xam nekk ko ci jaamu yàlla nekk ko ci liggéey ba noppi yar ci njabootam kon maam Cheikh Anta buy taxaw la kon ku ko waxtaane woon rek waxtaane nga maam Cheikh Anta ak liggéey li ci gone yi xamul xëy na la bëgg a indi ay tuuti leeral ci maam Cheikh Anta li mu doon liggéeyee ak li mu doon liggéey fu mu koy dugal ndax lislaam daf lay wax ngay dundee lu lew wut lu lew dugal ko fu lew pour mu mën a fulu ndax dafa am ku ma sa ñëw ci sëriñ bi ne ko man de sëriñ bi damaa jaaxle ci sëñ Tuubaa mu ne ko jaaxle da ñaar rek la jaaxle àddina ak jaaxle àllaaxira jaaxle àddina gu liggéey mënta faj na xaw ma ko jaaxle àllaaxira gu jaamu yàlla mënta faj xaw ma ko kon nag boo bëggee àddina boo jaaxle ci àddina demal liggéey boo amee jaaxle àllaaxira demal jaamu ji yàlla te yaakaar naa ni loolu la sëriñ Tuubaa wax ci masaalik fal taxlaman bi anna xilmu wa amal huma wasilatu sa'adat ajal kon nañu xamni xam-xam ak jëf moy ñaar yi nga xamni ñoy sa tok way ngir nga dama ajal kon nak nit bu dee ab julit di as gor bëgg dundé aw ñaxam yaakar na ni fo mu liggéey waye mam Cheikh Anta liggéey bobu mom da ko tégon ci anam bo xamni da ngay dem ba mujj gi nga yaakar ni batin la waaye dafa amoon lu ñuy wax gis-gis loolu la tubaab di wax vision maanaam dafa daan am gis-gis ci luy ñëw di foogu ba nga xam ni lu muy dugg lu ne bu ca duggee rek da am ndam loo xam ni danga nga naan li waa sëñ bi lii nu mu ko xamee woon danañ ci joxe ay exemple yu bari yoo xam ni ci lim daa def ba nga xam ne xaalisam day bari ndax jàpp nañ ni sax dafa daan bay lu bari te maanaam lu ci ëpp. dafa da nit ñi dañ daan bay ba pare jaay ko mais muy def commerce boo xam ni ci jamono boo xam ni dafa metti ndax avant indépendance la ci jamonoy crise mondiale ñëw na fi guerre mondiale ñëw na fi lu ne dox na fi maam Cheikh Anta mën a fexe ba peeg loolu ba mën yar ay taalibeem ci liggéey mais noonu mu def ba am autosuffisance yaakaar naa ni loolu bu ñuy waxtaan ci ci jeexalat bi maanaam état tax mën na ci roye ndax moom da daan def ba li muy dundee lépp moom mu amal ko boppam nit ki boo fexee ba li ngay ba li ngay dundee nga di ko bay wala nga di ko liggéey leneen loo am sa bénéfice lay doon mam sa ant fu mu masaan a nekk xam ngeen ni am na puur def naa fii ci kër gu mag gi am na fi waaw gaawaan amoon na fa fu mu masaan a nekk am na ay mbànd yoo xam ni diwlin la fu mu masaan a nekk am na ay magasin yoo xam ni ceeb baa fay nekk am na ay sàq yoo xam ni dugub moo fay nekk ak gétt gi bay mbàkke ñas ba dëkkoon gaawaan moo ko ko daan yaram nga xam ni lépp luy ndawal da koy am jën yi day jóge ci réew taax yi day jóge Dakar di jóge Ndar di wàcc si légumes mi ñu di ko béyee foofu ci njaareem kër Baay Laay Gay kon lépp loo xam ne dañ ko daan dunde rek maanaam amoon na ci biir moomeelu maam Cheikh Anta mu fexe nag ba li nga xam ni mooy dëkku murit yi nga xam ni murit yi dañ fa daan jóge mu xàll ko def ko ay tali liñ daan wax euh, tali yu xonq yi rang-rang moom moo ko njëkk a def fépp foo xam ne murit dafay jóge war mën seet si sëriñ tubaa rek maanaam xàll na ko ay yoon système bii ñuy wax horaire moo ko njëkk a mettre en place nga xam ni dëkk yooyu ay kaar dafa daan jóge di ñëw yii kaar di jiyoloog yooya ñiy seet si sëriñ tubaa di mën a ñëw ci ñëw bu jàppandal ñi nga xam ni dañuy jóge ci Serigne Touba yi di mën a dellu fa nga xam ni fa lañ jóge ñeenti gox yëpp muy bët gànnaar yiy jóge booru Ndar booru Richard Toll kaar yooyu day ñëw yiy jóge Saalum yiy jóge euh, booru Ndakaaru yëpp ak yiy jóge Bawal jëm si Njaareem maanaam yooyu yëpp da ko defoon ay xàll def ay kaar yoo xam ni dafay jóge ndax ci la jóge woon ba nga xam ni moom sëriñ bi ci boppam oto yooyu maam Cheikh Anta jëndoon maanaam ba mu koy wax jubluwu ci woon maanaam am fukki oto ñaar mais bëgg soxlab sëriñ bi fu mu taxawee rek ay otoom jóg kon loolu organisation état la doon def di wut nag liggéey boo xam ni moom daana jënd dund parce que dem dégg naa déglu naa jox ci sëñ Fallou mii lu mu doon jëflanteeg maam Cheikh Ibra Fall ba ñuy bindante kayit loolu ak njàngale nga xam ni nit ki lu ngeen jege jege ak lu ngeen xamante xamante bu ngeen di jëflante te alal dox ci rek bindante leen kayit doon sa doom kon loolu beneen jàng la mais ni mu daan liggéeyee dafa daan am jis gis ci commerce am jis gis ci ni muy dundale commerce boobu. dama ciy joxle ay exemple yu wér 1919 bi nga xam ne dañ naan boobu moo ci moo ëpp alal mas na ñëw jël dugubam jël gerteem gépp daal di ko segal ñu ne maam Cheikh Anta li muy def nii gerte gi maanaam nit ñi soxla ko mu ne nañ ko segal mu denc gerte gi ab diir segal ko denc tubaab bi ñëw bëgg jënd gerte gi mu ne ñu ne dañ ko segal te tubaab bi booba segal lañ soxla diw lañ soxla woon ndax booba ñi ngi defari ngànnaay seen ngànnaay yi commencé di màgget te war nañ koy diw mu lànk ne du leen ko jaay tubaab yi dellu bi ñu delloo daal di ne léegi comme moom c'est un sujet français maanaam amul nationalité am nañu ñun droit def réquisition ci lim moom ndax mam Cheikh ndabo boo bi nga xam ni def dañ ko yóbbu exil alalam yëpp tubaab bi dañ ci tegoon loxo bi tubaab bi ñëwee di def si réquisition dañ ne balaa ñoo def réquisition nañu ko proposer prix boo xam ne du ko mën a gis fenn te fekk mel na ni boobu moom loolu lay xaar bi ñu ñëwee rek ne ko ñun de mbiru gerte gi moo ñu taxoon a jugaat lii de mën nañ ko ci. bañ ko ko joxee fay ko ko at boobu lim am ci xaalis wax nañ ni at boobu la am Cheikh Anta nekk dañu wax l'homme le plus riche du Sénégal 1919 hmm. am kër fépp foo xam ni ci Sénégal la am ci parc oto loo xam ni kenn mësu ko am am ci matériel agricole yoo xam ni kenn mësu koo am muy 1919 kon loolu dafa mel ni ñun bu ñu xamul mbir nu mu demee rek dañ naan ah baatin la mais gis-gis la daan am mas naa gis fii ci Tëngéej fii nga xam ne dañ koy wax euh, usine ciment bi terrain boobu maam Cheikh Anta moo ko moomoon ñu bëri xamuñu ko bi mu koy jënd njaareem la jóge jëm Ndakaaru jaar Tëngéej benn magum lébu ne ko doo ñu ne ko maam Cheikh Anta jaar na fi ñu ne ko ah, mu ne kooku de ku bari xaalis la dama ko bëgg a jaay sama terrain bi bi mu ñëwee xool ko ne ko ah terrain bi dama ko bëgg a jaay waaye kenn bëgg ko mu ne ko loo koy jaayee mu ne ko ñeenti téeméer mu jënd ko ñu ne ko ah sëñ bi yow li nga jënd foofu ay xeer rekk fa ne mu ne waa baax na xeer dana am lu muy jëriñ bi mu demee ndakaaru dëpp del siwaat njaareem toogul fukki fan ak juróom ab tubaab jóge France ñëw di monter usine ciment boobu ñu ne foofu rek la am benn matière ci xeer yi lu ñuy wax clinker clinker moom la ñuy wal defee ko ciment tubaab bi daal ne moom terrain bi la bëgg ñu jaay ko ko ñu ne ko ah kii de genn góor gi murit moo ko jënd euh, te njaareem la dëkk ñibbi na bi mu ñëwee moom waxaane woon ak maam xam Anta def ko ne man na sa terrain moom am xeer yi deux cent mille laa ci mën ndax mën nga ma koo jaay waxaale wuñ tax te booba ñaata la ko jënde deux mille francs ci jamono jooju ci kon da naan xëy na lii gis-gis la wala lii baatin la am na beneen bu mel noonu boo xam ni mooy bi leen bi sase ay addiya ak yenn mag ñi ñu dem Ndakaaru biñ ñëwee Ndakaar dañu dañu toog ñëpp dajale seeni taalibe di dajale ñii di jaay ay butéel ñii di jaay ay xees lu ne ñu di ko jaay maam Cheikh Anta moom dem tëdd këram gu mu amoon biir Dakar di rey xaram di tàngal kafe gi murid yi di jàngi xasida mu woo benn taalibe na ko dama bëgg fii nga wutal ma kër gu ma jënd waaye nag na doon kër bu baax te seer ñu dem waxaale ko génn kër mu dem waxaale waa ji ne ko loo koy jaayee mu wax ko mu ne ko ndax mën nga maa defal promesse de vente mu ne ko waa promesse de vente day moom buñ la ko defalee bu délai bi jeexee itam perte nga doo dootoo dootuñu la ko jaay keneen lañ koy jaay waaye diir biñ lay jox. lu mu mat rek maanaam amul kenn ku ko mën a jëndaat yow su la neexee sa promesse boobu mën nga koo jaay ñëw fay ñu ñu defal ko promesse de bu weer mu dem tëdd nekk ca këram ca nam nekkoon kilifa yi mu àndaloon ñoom ñi ngi wër di dajale lu ñu am defuñu ñaari ay bis nit ñëw di waxaale kër googu ñu ne ko kër gi de kenn rek la ko mën a jaay muy maam Cheikh Anta mu ñëw waxaale ak moom tegal ko ci deux cent mille ca prix ba mu ba mu waxale woon ak ak ki nga xam ne moom moom kër gi mu jël ko jaay ko kooku fay borom kër gi ñëw tëdd ak deux mille bi mag ñi dajalee ba ba ñëw amuñu jax ñaar fukki junni mu yëgati lam leen joxoon jël teg ko ci loxo maam cierno ne ko dajaleel ak li ngeen am bu ko defee bu demee ñu jox ko sëriñ bi te booba da nga koy jëw naan seex de moom sëñ baa ngi sas li mu tëdd di rey xaram ak ak a seexu rek hmm? waaye biñ ñëwee ci sëñ tuba sëñ tuba xam ne lépp ndax ndeysaan biñ dajale xaalis bi jox ko sëñ bi bi mu jëlee bant bi dafa ber li nga xam ne moom leneen maam Cheikh Anta joxoon te naanaka moo ci ëpp ber la Cheikh Ibra indiwoon ber li maam Thierno indiwoon daal di xanaa du ni la toon daal di ko dajalewaat ne leen jërë ngeen jëf kon maam Cheikh dafa doon incarné loo xam ni bi may ñëw léegi dama am benn téere boo xam ne dama ko dama ko amoon bu yàgg gëj koo gis ma ne naa ko seet maanaam mi ngi tuddoon laa doctrine économique du mouridisme Ablaye Wade moo ko bindoon en 1966. bi mu koy bind xool nga mi ngi ko tiitaree liggéey ci jaamu yàlla la bokk ak liggéey ci topp yàlla la bokk ñetti nit la ci jox. exemple ci yoonu murit muy maam Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Anta ak sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mu ne maam Cheikh Anta kii maam Cheikh moom dafa jël liggéey def ko mu bokk mu jaamu yàlla nga xam ni liggéey bi mooy génne ay bàkkaaram liggéey bi moo koy eggale ci suñu borom waaw mu ne maam Cheikh Anta dama dama dama leen koy liiral tuuti firi leen ko hmm? Cheikh Anta frère de Baba, représente la tendance commerçante du mouridisme grand voyageur et commerçant il acquis une importante fortune qu'il a mise au service de la confrérie pour lui sans richesse matérielle le corps est incapable de pureté et l'esprit ne peut s'élever particulièrement attaché au progrès

du mëna du mëna sel sell du mëna yé du mëna dumana tedd té it xelam du mëna yëkëti ko du mëna xalaat ndax da fay melni ki bëgg julli te amul dépense mën na am xelam génn ci julli ga motax nim ko tuddé won cheikh anta mbacké ou la pureté fille de l'abondance mune cheikh mam cheikh anta mbacké wala moy ki nga xamni ak sel ah alal ju sell ah moom moo jur xéwalum gu bari googu kon loolu mooy kasful alaal mooy alal ju ju ju sell loolu nag da ci daan bàyyi xel lu bare bare ba nga xam ni kum daan jëflanteel ku ne maanaam da koy teg ci anam boo xam ni anam wu sell lay doon commerçant yi mu daan dimbali. ci réew mi ndax moom daawul liggéey pour am xaalis mais da daan liggéey pour société di jëriñu ndax ñi mag bu ñu leen waxee li ñuy wax Sonadis xëy na am na ñu ko fi xam xëy na am na ñu ko xamul ci jamono yu yàggee 1970 ay magasin la woon yoo xam ni loo masaana soxla mooy moo doon daan supermarché mais ay prix normal lañu daan jaay bi fi Sonadis jógee.

ndax dañ ne léegi lu waay neex jaay maam Cheikh Anta nag dafa def lu ñu wax dafa daan def commerce di ñu wax régulariser prix yi ak def lu ñuy wax péréquation prix yi amoon na lu ñu daan wax bu yàggul caisse de péréquation bi daan jaay ceeb moo daan fexe ba prix ceeb bi fépp foo dem ci àddina bi day nekk benn prix régulariser prix mooy fépp prix yi dañuy war a toll maam Cheikh Anta loolu ni mu ci daa def bu ñëwee fenn ci benn gox ñu ne commerçant yi dañoo yokk prix yi day laaj ban daare wala ban marchandise la yokk bu ñu ko ko waxee mu dem jëndi ko daal di woote ca pénc ma bu ko gars yi di jaayee 1000 francs mu ne ko am 500 ñëwal jënd buñ ko defee ba commerçant yi ñëw jooytu ko mu ne leen wàññi leen te jaay ko lu jaadu buñ ko wàññee jaay ko lu jaadu mu doog a bàyyi. loolu moo indi daanaka tubaatul lu mat lu bari ñu jaay ko bi ko maam Cheikh indee yëkkati xaalis bi jox ko sëriñ bi sëñ bi laalu ko tegu ci benn baat maam Cheikh toog toog toog lu yàgg yaakaar ni sëriñ bi da cee kontaanul mu daal di jóg delluwaat daal ne bàyyi lay delluwaat leen ci àll bi ñu delluwaat ci àll bi ab diir ba ñëwee ba dajalewaat lañ am ba ñëwee jox ko jox ko sëriñ bi. sëñ bi na ko waaw góor Cheikh dama la doon jaay kun fayakun bi nga njëkkee ñëw kun rek nga indi waaye da dégg daaj moo tax nga delluwaat léegi jox naa la kun fayakun kon maam Cheikh booy waxtaan ak moom ci lim daan wut ngir sëriñ bi duma ma bëgg dugg ci détails yi ndax yooyu yëpp maanaam ay détails la waaye sëriñ bi la doon defal ba tax na keroog bi fi sëriñ bi jógee keroog la gëj a wut xaalis. ndax dégg naa barki dem bi sëñ Fall mii di waxtaan ci màkka gi lam fa def ci bi muy ajale sëriñ bi lépp loo xam ne sëñ bi yéene woon na ko ci yonent bi ba mu fa demee loolu la fa fas ne maanaam ndax da daan wax sëriñ bi yow ba ko keroog bi sëñ bi fekkee ba mu fekkee sëñ bi gaboon sëñ bi ne ko boo bëggee ma fexe ba yonent bi fi jóge léegi ma ma wane la ak moom mën na ko dee yow deel gisee ak moom man may gisee ak yow rek loolu mooy ak pas-pas loolu mooy ak ngëm loolu moom ay moom mooy mooy doylu waaye fi toll booy xool taalibeeg léegi gi mooy lan dangay ngay ci fii boo déggee keroog benn waay bu xumbal fii nga ne ah fële la mbir ya mbir ya newut fenn mbir yi dañ koy roy ci mag yi ni ñu jàppee sëriñ bi dañ daan fanaane naafila fanaane jàng alxuraan doo jàng xasida te bu bëccëgee ñu tak seeni laxasaay dem ci tole ñun nak ku ci jang ñaari ñaari xasida japp nga ne ak nga ci yalla japp nga ne waratoo siara kenn japp nga ni manam waratoo magal kenn manam bu ñepp yemon manam am ñu gedd seen ciir ndax am na murid yo xam benn way bo xam dafa ma sa fekk sëñ ànd juuf làmbaay ca ca tolam ya sëñ bi tok ci kepar gi do ngay nekk ci bi di liggey waa ji yor ay kaamil yu muy weccee bi mu ñëwee gis xam ni sëñ bi kilifa la mu ne ko man day sëñ bi dama xam ni kilifa ga romboon naa la ba pare waaye kaamil yi de dama noonu naa la ko woon seet ba xam soxla woo ko mu ne ko ah ma xool ah man de xawma ci dara waaye sama donga yére ko ci gis am kàng xaaral ma woo leen xoolal ma ba xam ba mu wooyee kenn mu ne ko ah waaw lii de moom wow na koom tuwaarkàlla mu ne ko ah du rafet rek laa bëgg ndax dama koy jënd jox ko daal di jël jël kaamil yépp weccee ko fay ko waa ji xool xool jaaxal ne comme bokkut ci yoon bi mu ne ko sëñ bi ndax mën naa laa laaj dara te sa dong duñ ma def dara mu ne ko ah doo bëgg laajal mu ne ko ah dama gis yow ngay seen sëriñ ñoom ñu mokkal alxuraan te yow nga na xamoo ci dara mu ne ko waaw ñun taalibe sëriñ Tuubaa la li sëñ Tuubaa def ci ñun daa ëpp doole alxuraan moo tax ñuy lif leen kon liggéeyal sëriñ Tuubaa dafa ëpp solo lépp bi may wax fii léegi di wax ni Cheikh ibrahim dafa jëloon liggéey def ko symbole ko ci jaamu yàlla dafa am loo xam ni ñenn ñi dañ koy réer ndax Cheikh ibrahim dafa doon wax naan liggéey gën jàng joxe gën julli mandoo gën koor bu ko defee waa ji koy gis-gis bu gàtt-gàtt da nga naan kon mën naa liggéey rek tey tey tey jox àddiyee waxuñu la ngay xëyal di liggéeyal sa bopp yow ngay xëyal di liggéeyal ci nekkal yàlla di ko xëyal subaa ngoon am guddeeg bëccëg amoon lenn loo soxla lu dul moom sëriñ bi nga xam ne amul jot ci liggéeyal boppam lay jotam mooy lan jàngal nit ñi yar nit ñi tarbiya nit ñi tarqiya nit ñi maanaam kooku liggéeyal yàlla rek lay def nga xëyal ko kooku moo gën di jàngi ndax bu fekkee jàng nga te la nga jàng jëfewoo ko amut njëriñ te sëriñ bi dana la jàngal loo xam ne boo ko royee maanaam dafay mel ne jàng ko ndax ñun dañ daan jékki-jékki di dañ daan roy sëñ Saaliw di ko roy ci ni muy jullee di ko roy ci saar yi muy jàng di ko roy ci lépp lu muy def te fekk doo ko defee lu dul bëgg da dem ba jékki-jékki jàng benn téere daal di gis ne nekk lii lii lay jëriñ nga xam ne nekk te jàng nga ko te kenn tëralu la téere buñ la nee joxe moo gën julli manam waxu ñu la manam nga yor 1 million dem jox señ bi 1000 francs manam li señ bi wax ni mourid momul dara dara momuko kon lo mom señ bi ko mom kon lo mom nitu yalla ko ko mom kon nak dañuy wax ni lo am jox señ bi la ca dess mando gën koor mando mo gëna yafa lepp do jëw do fen do rambaaj do wuruj do nafiq do jaxase ay nit te fi mu doon kenn ku ci ñun ku la mën a wax ni toog na sama bëggoon te jëwut amul te jëw dana wecc maanaam lu ëpp juróom benn fukki maanaam euh, njaaro kon fi mu yooyu dañuy jafe ba tax na nit ñi dañ ko bëgg a jàppee loo xam ni lu yomb la Abdoulaye bi muy wax fii bi mu jëlee ci sëñ Cheikh Mbacke dafa wax ni Cheikh Mbacke moom mooy moy le plus jeune et le plus dynamique des marabouts mourides waye dafa jël roy mom mam Cheikh Anta ci modernisation roy Cheikh Ibra ci liguey manam seigne Cheikh Mbacke dafa copier mam Cheikh Anta 100 ci moderniser ndax mam Cheikh Anta commerce bi mu doon def mo njëkk bok ci li ñuy wax chambre de commerce manam pour lan pour mën a fexe ba jokkaloog li nga xam day jóge bitim te nit ñi mënuñu ko am ñu di ko am fii te loolu feeñ na ci bi muy dem Màkka commerçant yi nga xam ni xamu leen nekkuñu ci yoon bi waaye dafa jël alalam financé leen ko ne leen yóbbaale leen Màkka ne leen bu ngeen demee jënd leen marchandise Màkka indi ko senegal ngir waa Sénégal mën ko am kon dafa daan décentraliser commerce am maanaam ni muy liggéeyee da ko daan def defin woo xam ni. dangay dem ba yaakaar da ciy am intérêt mais daf leen di jàngal rek ni ñuy liggéeyee kon nit ki bu fekkee dafay fexe ba yow lim doon dundee nga di ko am amal sa bopp di ko liggéeyal sa bopp mooy tubaab bi tax dañ koy wax ci économie maanaam fexe ba li ngay dundee nga di ko liggéey loolu day indi autosuffisance alimentaire loolu nag yaakaar naa ne état yi ñoo ci war a mën a roy xam ni balaa ngaa jéggaani dara. na nga fexe ba li nga am ngay nga doyloo ko li nga ci mën a transformer nga mën koo transformer waaye bu fekkee lépp da nga koy jéggaani maanaam li ñuy wax tubaab bi dañu jox wax eh, détérioration des termes de l'échange maanaam da ngay jël li nga li nga li nga produire lépp jox ko tubaab bi ñoom ñu jox la tuuti échange bi échange bi dadul équilibré ñun dañoo war a jàng ni ñuy transformer ba li nga xam ni moom la ñuy bay di ko liggéey ci réew mi ñu mën ko transformer ba mën koo jëriñoo ndax ni ñuy mën a fexe ba jël céréales yi transformer ko ba nit ñi mën koo jëriñoo yaakaar naa ni maanaam loolu maam Cheikh Anta doon def autosuffisance boobu yaakaar naa ne bu ci état yi rombee euh, royee xale yi roy ci maanaam yaakaar naa ni loolu danañu amal njëriñ kon loolu lépp dañ koy mën a tënk ci liggéey bi nga xam ni maam Anta Ndiaye defaloon na dafa defaloon na ko maam Cheikh Anta muy loo xam ne ak ndonom la xam naa timis day bëgg a jot te yaakaar naa suñ Fall dana ci bëgg a sànni ay kàddu. waaw ah, ankay da nga ci tënk rek mën ta ji timis day bëgg a jot. dana ci mën ci ci xam nga man dama doon dama doon introduire rek <laughs> dama am réunion bu ma nekkoon dama daanaka dama dama fekk pour ñëw jax ah. waaye ndax waaju ko. mais timis day bëgg jot mais mais mais mais foog nga sànni ci kàddu yow a ci ñàkk yow yaay wax kàddu Daaru Salaam <laughs> kon baax na kon yaakaar naa ni tënk nañ ci tuuti rek loo xam ni ay junj la mais buñ ko waajalaatee yaakaar naa ne danañ ci mën a dugg ci ay détails yoo xam ni ndax lenn lu ci ne boo ko jàngatee yaakaar naa ne da nga ci gis xarañ boo xam ni maam chantam mi ngi ko doon def ci ci fànn boo xam ni bu jéggi dayo la boo xam ni kenn ko ne mën na ci jàng maanaam ci wut alal ju sell am mbégte ci jataay bi di nuyu waa bi ñëpp di samay mbokk euh, di jaajëfal sëriñ Saliou ci tomb bi mu andi tomb bi daa mel ne sëñ Saliou daa waxtaane nag wi waaye loo ciy wax na ngay xam ne ca nday jël la ko jëlee euh, dafa am ko masal laaj sëñ Abdoul laaj bu am solo dane woon sëñ Ablaat ndax bamba ji yaay ci la sëñ na ko bamba ji yaayee lépp ndax sëriñ Touba noon na lii ma amee liggéeyut ndey du ko maye waaye ku sa ndey liggéeyut nag doo fi toog di ko xaar ba di ci jot kon lépp ndey la mamanta Njaay nag walla maam sexanta yaayam yaayam day réew mi maamante Njaay day réew mi fimne mu ne Anta mo mu tuddu mam Cheikh Anta sëriñ Afia soxna fati Anta soxna Anta Sëli nyom nyom ñepp amu ci rew mi keuruk doomi soxna gu ñuy dugg te doonuñ ci borom keur ga dara ndax li mam Anta jaay bokk ak rew mi dafa amu jenn jigen diko bokk ak rew mi mam Cheikh Anta li mu doon ci yoonu murit wax naa ko waxaat ko amut keneen ku ko doon te lu mu doon ci sëñ Touba moom la doon ci maam Thierno ndax sëñ Touba ak maam Thierno ñoo bokk ndey doon ci moom la doon ci sëñ Massamba moom la doon ci sëñ Balla Coro moom la doon ci sëñ Cheikh Absa moom la doon ci sëñ Cheikh Coro ndax nit da ngeen di bokk ndey baa ngeen bokk baay baa seeni baay bokk baay seeni yaay bokk yaay maam Cheikh nañ façon mbokk yi wépp bokk na ko sëñ Touba bi ci gën a gàtt rek mooy soxna Anta Ibrahima Awa Niang mi ko jur ak sëñ Mbacke Mor Anta Sali mi jur sëñ Touba ak Ahmadou soxna Boussa mi jur soxna Astawaalo ñoom ñëpp ñoo bokk baay kon bu dee ci wan fànn googu rek maam Cheikh Anta nijaayi sëñ Touba daal nijaayam ndax maam Anta maam Cheikh Anta ak soxna Jaara ñoo bokk ndey ndax maam Anta Njaay ak soxna Asta Wala ñoo bokk baay te lim doon ci sëñ Tuubaa lay doon ci sëñ Busoobe kon boo delluwaatee ca Ngédé loolu la fay doon ndax soxna Asta Wala moo meññ sañ sëñ euh, Busoobe kon maam Anta Njaay mooy yoon wi waaye bu de boo delluwaatee ci Malamine Dem Malamine Dem wàlli la woon woo xam ne euh, maanaam amoon na turu yàlla wu ñu wax ci ak as samadu samadu bu ma bu ko masaa bind bu dee ci ab xare moo daa ñaanal buur bi jolof moo nekkoon sëriñam waaye buñ ñu masaa di ci xare bi samadu lay bind gawar gi lépp lu dugg ci biir samadu gi da nga si su ko dara masaa tiim di naaw su ko wàccee ci biir samadu gi loolu day wàcc ba ci biir sama du gi wax nañ ne am na benn xare boo xam ne dafa taxaw bind sama samadu ne li ma féete joor na ma fekk ci biir sama dugg dafa mujj waa dëkk bi di daw mu mu mu arrêté ne li ma féete càmmooñ na ma fekk ci biir sama dugg foofu la wilaayatum tolloon ma Lamine Dem moomu nag moo am ñetti doom ak as astu dem moom la nit ñi yàq di wax aysa aysatu lañ yàq ci aysa astu dem moomu moo mel ni mambala aysa maharam lañ ko jox mu ciat mam maram ciat lo ci mam bala ci dem mo meññ mam bara sadio di maami waa boofel yasin dem mom lañu jox ku ñu wax yoro saw mu am ci kanni saw ñu jox ko ibrahima awanyang mo am ta anta jaimak, mujur mu jur mam kon amul wet bu mbok tak seigne tuba ta mam cheikh anta ak seigne afe ñoo bok ndey baye waye bo delluwaatee ci awanyang mako meñ awanyang mi meñ soxna ante dia ibrahima awanyang mok aram nyang aram nyang mi meñ maharam mi tax ñu naan mam aram mamma haram olof ko yak nan mam haram waye modu aram la tuddu mohammed mam aram nyang aram nyang mi ko meñ beurgal ma fent nyang mako meñ ma may càmmiñam mo jur awanyang mo jur awanyang bi Moodu moom aram jan jàngee ba ñëw kër nijaayam la dellusiwaat ci Jolof mu may ko doomam muy soxna awañang moom la njëkk a denc moom mam taaw taawloo ca ko ñu wax soxna mbakke awañang moo meññi xaalima jaxate kalaar ya ca aju teg teg ca Ibrahima awañang kon soxna Anta Njaay day doomi buur juleer bi yàlla dogalee mu war a ñëw ci kër Ibrahima awañang nag e eh, foo la mbir ma ne jolof dañ koo yab dañ koo yabee lu garaw wax nañ ne bi muy ñëw ci kër gi juróom-ñaar fukki fasi naaru góor lañ takkal soxna Anta Njaay naaru góor wu nekk ka ko war jig soxnaam topp na ci ginnaawam di ko sant nga xam ne kon juróom-ñaar fukki góor ak juróom-ñaar fukki jigéen muy téeméer ak ñeen fukk ñoo fekk ñoo ant sant si soxna Anta Njaay te biñ dikkee delluwaatuñ kon demee na ñu ngi noddu ma ñu yemale ko foofu Nima don leral ci mamanta ndjay bi yalla dogale muy ñew ci kër sëñ ibrahima awañang bi mi ñew ci kër soxna awañang bi mi ñew ci kër mam maharam manam, liko topone ci ay gawar mom soxna awañang ndax bobo ñooy buur ba jolof wax naa ne juróom-ñaar fukki fas war nañ fasu war wu ne ki ci war sa soxnaa ci topp kon day mel ne juróom-ñaar fukki fas topp nañ ko waaye téeméeri nit ak ñeent fukk ànd nañu moom kooku nag ku ne xam ne ci la barke tàmbalee moom moomu nag mooy wayjur Ibrahima Awañang kon Ibrahima Awañang doon na ki nga xam ne askanu Mbàkke moo ci ëpp barke barke Mbàkke bépp mu ngi ci loxol Ibrahima Awa Niang loolu it dafay am lu ma ciy leeral tuuti ndax jamono ji léegi caméra yii ak micro yi dana yóbbe nit ñi ci wax lu ñu xamut moo tax may wax toujours ne baye boo may bàyyi sëñ Balla ak sëñ Daaru ñoom ñu ñëw ne ci terrain bi ak sëñ Mara ñoom ndax ñun lañ gëstu woon ordinateur yi ñoo ko primeel ordinateurs yi li mag ñi nettali woon démb ak li may dégg tey daa sore ba mel ne lañ déggoon nga xam ne ka ko fekk woon moo la koy nettali léegi ki nga jàkkaar lool ngir mu bëgg lii muy wax mu siiw ci man damay wax toujours ne bu dee ci wàllu conférence nañ jëli ku mel ne sëñ Gànne Mesere wala ku mel ne sëñ Busra Sàmb ñooñu ay conférencier lañu seen gëstu ci man duma ab conférencier li ma dugal ci nett li ay wax dama jàng alxuraan ba mokkal ko jàng xam-xam ci sëñ Malick Dieng ca njaareem bi ma demee nag ba war a nit ku baax koo am yéene ci man ñëw ne sëriñ Modou Rokhaya damaa bëggoon nga jox ma fàllu galas dama ko bëgg a yóbbu Gabon booba Gabon moo xew sëñ Modou Rokhaya na ma yow boo waree dem Gabon maa la fa yóbbu dama bëgg nga ñëw jàngi sëñ Touba loo jàng lu dul sëñ Touba sëñ ko gën soo jàngee sëñ tubaa des na diir bu gàtt nit ñi dañ bàyyi lañ jàngoon te ñëw fekk si la ma ne ko sëñ Touba nu ma koy jànge mu ne ma da ngay ñëw ma yabal la ci mag ñu fekkee sëñ Touba ñu wax la wax xisey sëñ Touba yépp te booy dem nga yóbbaale bindukaay ak lu enregistré wax may dem jaral ma dugg ci oto di dem ci ay dëkk déplacé ci ay dëkk yu sore te booba moyen moyen bii amagut di dem mu lay nettali dañ lay jox benn xisa di la ko nettali ki la koy nettali ne la man kat dama ciy bañ a juum ca sëñ Tuubaa kenn du ko neel waaye wax jii ba mu ma koy wax diw fekkee woon na ko mu nga ca dëkk sàngam nga jógewaat ci dëkk boobu paas dem ci dëkk boobu ngir xam xisa bi léegi nag ci tànt yi la ñuy fara xisa yi tëggaat ko ba buñ ko nettali rek macha allah. moo tax wax ji mat di teey waaye maam Anta Ndiaye maam Anta Ndiaye dafa yéeme dafa yéeme mooy yoonu murit Ibrahima Awa damay wax ne barkeb Mbàkke bépp mi ngi ci loxol Ibrahima Awa te te liggéeyal na yoonu murit liggéeyal na lislaam liggéey boo xam ne xam nga Mbàkke bi ko maam Maharam sancee bi mu ñëwee fii jaale si ma Malamine Sarr muy sëñ daara bañ reyoon bimu mu waté la ko buur bi ne wax nako dama bëggon nga ñëw dëkk ak man mu xamal ko nako ko man mënatumaa dëkk ak yow ndax damay mag mu nako dama bëggon nga jox ma Ibrahima Awañang ndax gis nako muy loxol di jorul ma aram ba nopi bari barke ta rafet mu nako ki moy samay tànk mënuma la jox waye dina fi yabal magam yabal fi ahmadu Farimata mu am fi fanweeri taxut mbacké tuddu mbacké Farimata bi mu faatoo la fi Ibrahima Awañang ñëw dëkk na fi fanweeri at duñ wax Mbàkke Ibrahima Awañang waaye Ibrahima Awañang nag moo liggéey lu tax ñu naan Mbàkke Balla Mbàkke Balla di ko moomale Maam Balla Aysa day histoire bu gudd waaye Mbàkke ñaari mag nañ Maam Balla Aysa te waxuñu leen Mbàkke noonu lu tax bi Maam Balla Aysa ñëwee ne ñu naan Mbàkke Balla loolu liggéeyub so Ibrahima Awañang la boo xam ne moo ko waxoon soxna Jee Siise ni mu yoron tammi wayjuru seigne juru la am lum ko digaloon ci mamba la Aysa lola andi mbake bala kon Ibrahima Awa ñoom ku yàgg liggéey ci ci ci tariikha bi la way mamanta ndjay domam moy yoon wi euh, nettali nañ histoire nettali na batay yi liko andi keur seigne mbake Mor Anta Sali mom soxna astawalo moko yar soxna astawalo ko yar moko jangal jigéen ju mënoon alxuraan la te bari woon xam-xam egg ci kaw dafa dafa njooloon xees pecc ku masaa dendal moo la dàq ba noppi nekkoon liggéeykat yatt yi daana ko def moo njëkk nekk jigéen ji créer société buy suub booba suuba xew da daan def ay mbàndi suub ñuy suub ay yére suub cuub yére yu bari boole kook muy sàmm daa amoon ay gétt di sàmm daan bay da daan jàpp ay surga ba noppi nag di sëñ daara daan jàppale soxna asawaalo ci daara ji di jàngale kon li li sëñ saaliwu doon wax ci liggéey ak jaamu yàlla la soxna Anta Ndiaye boole woon gis nga turam wii tudd yàkkale yàkkale yàkkale moom wolof yëpp xam nañ ko ku dul joxe aw ñam di ko yónnee ci ay nit dañ la tudde yàkkale yàkkale du aw tur waaye turandoom yëpp yàkkale lañ leen di wooye buñ koy neexal naan yàkkale ngalam ngalam ku ne xam na na wurus la yàkkaleeti na ngalam lañ daan wax maam Anta kat yàkkaleeti na ngalam ba mujj ñu bàyyi turu maam di wax yàkkale ngalam yàkkale ngalam loolu li ko waral mooy jamono ji mu nekkoon dafa nekkoon jamono ju doy waar léegi la ku ne mën a am bassin ku ne mën a am mbumu rafet. Eh, gaay dem sin, di dem dubai di andi tissé yi mu yomb nga mëna am ay dal yu rafet waye ci jamono yoya ab dekk mel bu ba fay am kuy dem dang koy ab jamono joju nak la yalla defon mam anta ndjay man man man boram nga xamne da ran suub ay yere bam ag mu def ko ci ndab mu lem ko def ko ci ndab wut or def ci ub ko tak ko yan ko ben xale ne ko demal yital mako sa badjan diw bu dikkee mu ubbi ko fekk ca muy yére yu mën a sol ak ceen gu mën a takk non loolu la daan yàkkale daawul yàkkale ab ceeb ak cere loola tax na ku masaa seen yàkk bi ñu ne cëm maam anta day yàkkaleeti na ngalam kon ba mu koy man kenn mënut gu liggéey na ci yoon wi liggéey bu rëy moom moom moo njëkk kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ci yàlla dogal muy xese boo xam ne jarut di ci jaaraat ku mu fa waroon a wàcce koo ko ñëwut ngir xeeb xeebeel ngir xeebeel ndax mbàkke léegi lañ leen teg ci kaw bi fi sëñ tubaa nekkee waaye bi sëñ tubaa wooteegut yoonam wii kenn du may sa doom ko sant mbàkke sëñ tubaa defar askan wi boo wax ñu ne ay sëñ daara rek lañ ci amuñu doole ku leen may sa jabar ci laax lay dund lay lay dëkk booba ceddo bi moo coloniser réew mi sama doom garmi la ci yax bu rëy la bokk te xamoo ñu ne yax bu rëy semiñi ci ay sëñ tubaa moo ñëw defar askan wi defar 22 yi damay wax ne 22 yi gënantewuñ wuñ lépp yaa ngi tàmbalee ci Bakeef gënante wuñ sëñ tubaa ko defar ko ëpp as pas-pas nag jiit waaye 22 yi moom ñëpp ko bokkale mam ma xaram rek la fukki doom ak ñaar la am juróom-ñett yu góor ak ñeent yu jigéen ah Ahmadou farimate la tawloo mook Ceerno Farimata ñoo bokk ndey ak baay Ahmadou soxna bu sa ak sa Sayer soxna bu sa ñoo bokk ndey ak baay Ibrahima Awañang moom képp bokk baay Mambala Aysa moom képp bokk baay juróom-benn ngoog Ahmadou Xari Diop moom képp bokk ndey am euh, maa Soxna Mbay moom képp bokk ndey juróom doom yu góor yi la am ñoo ci réew mi Maam Anta Njaay nag moo njëkk kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali waaye def fi ne tawloo fi ku ñu wax Mbàkke Anta maam Mbàkke Anta magee na maam Jaara lu mat juróom-benni at maam maam Mbàkke Anta njaañ lañ ko denc njaañ moom moomu sëñ Touba wax na ne am na wenn way juram wu mas a ñëw ci moom na ko dama gént gis ñaari jant yu bokk feeñ ci benn jataay ci seen asamaan sëriñ tubaa na ko ndax ñoo soowandoo ñoo soowandoo mu ne ko mbàkke dafa mel ne soo ndoowun de benn jant ba ba mu ne jimeet ba tàmbalee leer la suux nee na teguñ ca lu mat ayub bis sëñ mbàkke anta wàccub liggéey nee na sëriñ tubaa wax ne mbàkke anta mii lii ne ci man ba ñëpp di ko topp su dundoon kenn duma xam ndax ak baaxam nee na bi mu ko nettalee Cheikh Ibra Fall daf ko ne looloo ko tax a faatu ndax ku tee ñoo xam la du gudd fan waaye pour di la wan rek ne lu baax yàgg na fi maamanta Njaay kooku la taawloo ci sëñ Mbàkke Mor Anta Sali teg ci soxna Faati Anta soxna Faati Anta mage na moom maam Cheikh Anta moom maanaam li ko moo mag ci laa wax damaa juum ne moo mag ci ku sëñ Tuubaa di wax doom moo xam muy jarbaat baa doom moom ak fan Fadja moom ak sëñ Moudou Moustapha moom ak sëñ Fallou ñoom ñëpp moo leen mag moom la sëñ sëñ Tuubaa njëkk a gis ci ab jarbaat ngir wan la wan la liggéeyu soxna Anta Ndiaye sëñ Mor Faati Touré mii gone yi tuddee conférence bi bi maam Cheikh ma Fall amee ngërëmul yàlla ci Daaru Salaam moo remplacé maam Cheikh ma Fall ci daaray tërbiya tërbiyewu na ba ak tërbiyaam àgg ndax maam Cheikh Anta daa dagg àlliwaam maam Cheikh bi mu jébbuloo daa dem jël sëñ Afe jël sëñ Mor Faati Touré magante wuñ lu bari kiri di kiri ki di jarbaatam mu bolé len djebbal len seigne tuba biñ djebulo nak mu na len doutu len fi jóg bi seigne tuba wote tarbiya gi mu ne seigne mour fatou touré yow da ngay dag sam jang ndax li ne ci alcorane ak lepp seigne tuba ko gën dag tarbiya ak seigne mour fatou touré djebbal ko seigne tuba seigne mour fatou touré tarbiya wu na seigne tuba ba wacc soko dalat jang nga xamne bi mi dalat jang di jang ab lak la daan def làkk boo xam ne sump ak kàdd ak yooyoo ci ne su gëmmantewoo ba bay bëgg a tëdd ak dégg jam ko mu siggiwaat ci la àggale alxuraanam jàng ci xam-xam ba àdduna bépp kon ci liggéeyu soxna Anta Ndiaye la bokk mu doon jigéen joo xam ne taxawaayam ci yoonu murit bi yàlla dogalee mu bëgg kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali dafa ñëw waxtaan ak sëñ Mbàkke Mor fekk laata muy wax ak moom daa dem ci soxna astawaan ne ko man day kër gee ma nekk di fa liggéey barke ba dafa bari te mënuma koo jeexal ma bëggoon ku ma àndal mu mu mu wut la ma barke ba samam xel nag na woon yar ci mariama mii nga xam ne maa ko jàngal ndax moo ko moo di jàngal te xam li ne ci moom mu ñëw wetti li ma ko mariama kat da ngay ndeyam ndax maag yow bokk baay ba noppi di sëriñam mënulaa fekk ci kër di wujjeeg yow mu ne ko wujjewul ñun ñaar lu baax dafa ne ma di ko wut te bëgg ku ko wutlee ndax damay bañ mu raw ma te yéenewuma ko kenn ku dul moom soxna astawaala jubóog moom ci loolu soxna jaar soxna anta jaay génne fanweeri dërëmi ngurdu fanweeri dërëmi ngurdu la génne jox soxna astawaala na ko maa ngi dem waxtaan ci ak sëñ Mor suñ ci juboo ma andil la ko bi mu ñëwee waxtaan ak sëñ Mbàkke Mor Anta Sali daf ko ne fii ma toll day lu may def ci soxna nekkut ci sama sama sama jiba waaye maa ngi kaamil bu ma bind ba ñaar fukki isib yu mujj yi ci suuf moo ci des su ma ko àggalee mën naa koo joxe mu ne ko bu kaamil ba àggee jox na ko kaamil boobu la sëñ Mbàkke Mor Anta Sali àggale jox ko soxna Anta Jaay mu dem jox ko soxna Astawaala boole ko fanweeri dërëmi ngurdu yooyu mu def ko ci soxna Jaara mu ñëw ci kër sëñ Tuubaa kon damay wax ne mo taxawé keur seigne bakay mo Anta seli seigne cheikh mom seigne salihu sotu mam Cheikh Anta ndax ibrahim awanya ko moy mamam dama fa dem di waxtan ak mom mune ma soxna Anta ndjay xolam bu yaatu moko may lim am ndax mo njëkk ci keur seigne bakay Mor Anta seli waye mo fa muccu xam nga njëkk ci keur mag ñëpp mboolem ña fa ne mo len mag ba mo muuru seigne bakay Mor Anta seli moko muuru moo ak mom ca dekkale loolu liggéey bu rëy ko ko may kon doon na exemple ci jigéen ñi ñu roy ci moom fi may daaneele nag euh, mooy sëñ Balla damay sant yàlla bu baax li may wax am na seere ci tànt bi dañu ne ngont mi maam Anta Jaay ko moom yu màggalu Daaru Salaam ñu cëral ci soxna Anta Njaay ngi soog a am mu ngi soog a am te fii ñu toog fii ñu toog la njëkk a woote ngontum maam Anta Ndiaye sëñ Modou Rokhaya digal ñu ko soxna mayum sëñ Moustapha Caytu mii lañ fi fekk si màggalu Daaru Salaam dafa jub ma dem archive nationale fekk fa ko ñu wax Omar Ba ma jël ci moom ay archive bëgg a def exposition ànd ak Alaaji Ndiaye mi yor programme kër sëñ Fallou ak sëñ Mbay Bayti mi nekk Daaru Xudóos booba ñun ñoo fi nekk di yëngutu ci màggal yi di def ay exposition way juru sëñ Maamun mais li sëriñ Amidun lañ sëñ Modou Rokhaya booleel biñ defaree pano yi ba defar exposition yi moo ma wax ne ma am na journal boo xam ne sa baay Seex Jaxate bu ko amut boo ko laajee sa baay Seex Caam dana ko am maam Seex Anta ko photo woon ca Marseille ànd ci ak Alaaji Mayoro Fall ma ne ko journal boobu am naa ko archive laa ko àndaalee pare Dakar la mi ngeek ak tabu tàkku fall ma yor biñuy def magal gi sëñ modro Rokhaya nañu kuy defal mam Cheikh Anta dang ki jital soxna Anta nyaay dama bëgg ngeen def ngontum soxna Anta nyaay khadim gi mi di jang su fatte wul ma ko wax ngontum mam Anta nyaay la ñëk jang ci fi mako fi andi fekk fi soxna may me ñu diko wajale magal daru salam kon bu yalla dagale loola di ay at yu yag ngeen togaat ba ren ngeen di wajal magal daru salam tudde soxna Anta nyaay am ngont dama naan dog ngeen yoon wa waaye dégg ngeen waxe mag dégg ngeen waxe mag ren it euh, màggal gi dafa daje yu bari démb dañu nekk ci consultation gratuite bi ma wax ne gaaw bu riis a ngi nii samedi